Cheikh Moustahine Dia lay dalal mu euh, jiite département contrôle ak direction bu réseau euh, ak itam service ca ARTP ci kanam. askan wi ci nit ci seen wér gu euh, jërëjëf Babacar ci laajte bi balaa may tontu ci sa laajte bi rek ma gën wax un ci. Euh, lan mooy rayonnement ci boppam mooy li ngay wax onde yooyu di émetteurs yi ak récepteurs yi di joxe euh, sooy seet ci kàllaama tubaab dañu ne rayonnement mooy euh, lu ñuy woowee en terme général une forme d'énergie en mouvement léegi nag énergie boobu di génn ci comme ni nga koy waxee ci ci antenne yi ak antenne yi yooyu dafa nekk ci ñaari pàcc am na yoo xam ne sooy seet mooy euh, yi fréquence yoo xam ne eggul trois cent giga mooy téléphone yi mooy rajo yi euh, micro-ondes yi yooyu yëpp yooyu la ñuy woowee rayonnement non ionisant beneen pàcc bi nag mooy yoo xam ne euh, fréquence yi ñu utiliser ëpp na trois cent giga yooyu la ñuy woowee rayonnement ionisant. mooy ionisant yooyu nag moom mooy. Euh, comme la moo gën a moom mooy gën a graaw moom lañuy ñuy utiliser. yooyu ci ci yan lay jóge ci yan xeetu antenne la nekk. yooyu nag soo koy seet ci source euh, radioactive yi la. yooyu euh, yooyu bokkul ci suñu suñu suñu domaine de prédilection. ñun ci li ñuy gën a saytu rajo yi ñuy def hôpital ak yu ni mel. yooyu la looloo tax soo koy sooy def rajo yooyu dañ koy gis ne dañ lay protéger yenn kii bu pare ñi koy def sax. ci benn néeg boo xam ne dañ ko genre euh, case de Faraday nga xam ne yooyu du échappé wu parce que yooyu ñooy indi activité mais léegi ñu ñëwaat ci euh, rayonnement non ionisant yoo xam ne antennes yi ñoo koy joxe yooyu nag Euh, ci saytu yu njëkk yu ñu def mooy euh, ak euh, fu mu nekk nii développement wu téléphonie bi ak antenne yi nuñ ko installé ci biir dëkk bi xam nga tamit antenne yooyu ñu installé moom moo tax nit ñi di mën a am réseau ça veut dire que antenne yooyu dañ ko war a lu mu gën a jege nit ñi quand même loolu mooy tax nit ñi réseau bi ñu mën a am. réseau am na këru téléphone yu jël seen antenne. teg ko ci kaw ay ay kër ay immeuble. voilà di fay waa waa kër gi. est-ce que yooyu baax na ñun sax am nañ ko fii de foog. am solo amul ko loolu laay wax xam nga antenne tamit foog foog mu jege nit ñi pour ñu mën a euh, am réseau bi su soree tamit foofu sax euh, la ñu gën a wax foofu la danger bi sax gën a nekk même dinañ ci ñëw bu si kaname eh, ci ci ak euh, téléphone yi. léegi nag ci saytu yooyu foofu la OMS di kàngam bu ñu dénk lépp luy wér gu yaram ci àdduna bi njëkk def ay saytu. ci euh, lan la euh, onde yooyu ngay wax mën a indi ci wér-gu-yaramu nit ñi bu pare mu dénk ko ay organismes yu mel ni euh, Union internationale des télécommunications pour ñu continuer saytu bi xool yan mesure la ñu mën a teg ba nga xam ne limite yi yoo xam ne euh, onde yooyu du am impact trop ci santé bi mu denkaat ko beneen commission bu ñëwee commission internationale euh, pour la protection contre les rayonnements ionisants ñooñu nag ñoom ñoo ci seen gestu ak ci seen euh, càmbarte ñoom ñoo génne léegi ay limites yoo xam ne antennes yi waruñu dépasser limites yooyu te limites yooyu suñ ko dépassé wul amagul luy wone ne loolu mën na Euh, affecté wérgu yaram. justement lan la mën a ban njeexital la mën a am ci wérgu yaramu nit. waaw xam nga sooy seet euh, ondes yi timit euh, comme lu ñuy waxee ah donc énergie lay dégager donc énergie boobu moom moom moom énergie boobu ak fréquence bi moom mooy yóbbu. Euh, énergie bi léegi nag loolu lu mu mën a indi ci gi mooy juste euh, mais amagul nag lu koy firndeel ah ci parce que amagul benn étude boo xam ne mën nañ nekk euh, onde yooyu su laalee nit ki wala mu mu mu mu mu jege ko wala mu yàgg ci environnement boobu am na loo xam ne ay yaram yu tàng lay mën a indi wala yu mel noonu parce que loolu la nit yi du gën a sentir si ci ci ci ci seen bopp soo yore sa téléphone par exemple nga teg ko sa nopp lu yàgg di wax ak moom da ngay ñu rek da ngay sentir ne yow sa sa sa sa bopp wala sa sa sa nopp fi nga ko teg. Ah dafay xaw a tàng. loolu fi di tëf yi itam du ko defa wala bokku ci. non tëf tëf yi moom loolu loolu mën nañ ko dinañ ko wax bi si loolu loolu ci ci ci ci mobile ci téléphone bi la ñuy wax ci ter terminal mobile bi ci boppam. loolu téléphone portable. voilà téléphone portable wala wala euh, bluetooth wala genre yu mel noonu. te loolu am nañu. Ah, bluetooth ci la hmm? non bon. këf yëpp euh, yoo xam ne xam ne yooyu yëpp ay émetteur récepteur la te yooyu yëpp dafay utiliser ay fréquence te léegi yooyu yëpp Euh, comme lu ma wax am nañ ci ndigalu suñu directeur général monsieur Abdouli boo xam ne année yii di ñëw dinañ commencé saytu léegi nag téléphone yi ci boppam ak euh, lépp luy euh, équipement radio électrique yooyu di dugg ci biir dëkk bi ñi mën a xool est-ce que norme yu ñu ko war a defaree est-ce que euh, fréquence bu mu war a doxee est-ce que puissance bu muy joxe est-ce que yooyu yëpp mi ngi méngoo. mais yéen lañ lañ dënk ngeen di natt loolu yëpp. ñi fi am ay ay antennes. antenne émetteur récepteur. yéen lañ dënk ngeen xool ba xam ñi ngi sàmmonteeg euh, li yoon wax ak euh, li baax ci nit ñi est-ce que. enquête ngeen ba xam ni ci dëkk bi am nañu fi samp ay antenne ak i jumtukaay yoo xam ne day génne ay ondes yuy dem ci biir nit ñi ci seen yaram voilà. ah ok donc euh, ci ci laajte boobu Babacar donc looloo tax euh, fu mu nekk Sénégal euh, à l'instar des autres pays du monde entier fu mu nekk ni suñu code de communication électronique moom moo njëkk teg base boobu jox ARTP effectivement sañ-sañu mën a vérifier luy antenne yooyu di génnee ñu ñëwaat ci décret benn ci décret applicatif yu loi boobu ci mooy luy relatif aux fréquences foofu la waxee euh, autorisa euh, autorité de régulation mu jël ay matuwaayam def ay jàmbat xool yan limite la ñu mën a euh, teg ci dëkk bi pour xam ne onde yi ak antenne yi du ñu mën a dépasser loolu. mais est-ce que opérateurs yi ak ñi def ñiy teg antenne yooyu est-ce que ñu ngi sàmmoonteeg yu ni mel ngir protéger population yi ci RNI yooyu noonu. effectivement donc comme lu mu ko waxee donc ci la ñu jëlee euh, décision pour euh, fixer euh, valeur yooyu. Mhm. léegi nag bañ ko tegee bu pare donc il fallait ñun ñu jóg wër dëkk bi pour xool antenne yi ñu teg yëpp nuñ ko tegee ak nan lañ ko tegee ak yan puissance wala yan valeur les antennes yooyu di joxe foofu nag la ñu wëree quand même Sénégal yëpp 46 départements yëpp la ñu wër. antenne yu opérateur yëpp ak euh, même yoo xam ne du opérateur yee ko mais ay antenne la ñi def càmbar bi bañ ko defee nag loolu lañu ñu euh, ci étude bi ñu def ba génnee résultat yi moom la ñu bëgg tey wan ko askan bi jox leen ko. mosoon ñu ci tuuti kay ginnaaw yaa ngi fi toog. Euh, waaw wante comme maa ngi <laughs> dëgg la merci waaw euh, mais tamit xam nga primeur bi euh, dañ ko bëgg a jox askan bi yëpp ñu yëgandoo. mais askan waa ngi déglu. waaw ñu ngi déglu certes mais dañ ko bëgg a nuñ ko bëgg a woo joxe mooy invité leen yéen ñëpp. ci euh, événement bi ñuy organiser léegi nii bu si kanamee. mais de façon ramassée lan euh, euh, de façon résumée mm-hmm. lu mu joxe. résultat yi dans l' ensemble mën nañu wax xel mën na dal léegi nag mënuma joxe les valeurs exactes boo xam ne moom mooy firndeel li ñuy wax mais yooyu bu si kanamee rek du yàggatul. di ngeen jot xew mi ci Radisson la ci Ndakaaru ci ci suba gi yéen ak ministère de la santé euh, mais bëgg nañoo xam itam ginnaaw bëggu leen ko siiwal léegi ñan ñoo euh, jéggi sart yi def na ko sudul noonu ci wàllu sampum antenne rajo yeeg télé yi wala këru téléphone yi ñoom Orange ak Tigo ak Expresso wala ñeneen ndax armée bi sax ak euh, état bi ci am na ay antenne itam moom yu muy jëfandikoo. tous les exploitants mooy ñëpp ñoo xam ne ñi ngi jëfandikoo antennes yi di parce que antennes yi moom mooy tax euh, jokkalante bi euh, ci wàllu communication ci wàllu internet ci wàllu lépp même rajo bi ñuy wax pour nit ñi dégg ñu antenne ngeen samp pour euh, li ñuy wax ni ñeneen ñi mën cee jot ça veut dire que def nañu xool nañu panoplie bi yëpp mais bi étude bi ñu def nii dañ ko jagleel quand même téléphonie mobile bi ndax ñoom foofu la askan bi gën a xaare euh, foofu la ñu gën a tiite foofu la ñu gën a am ay laajte ay euh, lu ñu mën ndax bëgg wóor na ndax antenne bi parce que ñooy ñoo gën a jege nit ñi tamit sooy seet xam nga rajo yi peut-être am benn point rek ngeen ko def parce que ak benn hauteur bu xaw a kawe pour mën a dem fu gën a sori mais téléphonie bi il faut mu jege nit ñi pour ñu mën a am euh, lu ñuy wax. Euh, eh, eh, eh, couverture réseau këru téléphone yi. seen antenne yi ñuy teg ci kaw ay immeuble di fay borom kër ga est-ce que danger la wala dara newu ci. non mënuñu ne danger la parce que comme lu ma wax xam nga antenne bi foo mu jege nit ki. pour mu jege nit ki pour mu mën a am réseau mën a wax nga xam ne du ma du ne euh, dama perte réseau wala yu mel noonu léegi nag loolu moo tax antenne yooyu ñu samp il faut timit ñun ñi ñi ñi gëstu xool est-ce que nuñ ko installé baax na est-ce que euh, lu ñu luñ ko configurer mooy luñ ko luñ ko càmbaree wala euh, lu muy génnee ci ay euh, puissance est-ce que loolu méngoo naag norme charte de charte yu ñu teg loolu yëpp ci étude bi lañ ko lañ ko xool léegi te loolu comme euh, lu mu ko waxee bu si kanamee rek. yàggatu ban mooy zone yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a exposé. zone rurale zone rurale wala zone urbaine yi. Euh, sooy seet quand même euh, parce que balaa ñuy dem dañoo def cartographie pour xool fan la antenne yi gën a nekk parce que il fallait que étude bi ñu def ko fu antenne yi nekk pas ñuy wër rek dëkk bi di xool mais fu antenne yi nekk te sooy seet environ waaw mën naa wax 40 pour cent wu antenne opérateur yëpp soo leen boole ñu ngi ci biir Dakar. Mhm. waaw 60 pour cent yoo nekk ci yeneen région léegi téléphone yi. waaw nga tëdd di charger sa téléphone mu ne sa wetu bopp nga fanaanee noonu wala nga yor bluetooth utiliser ko journée bi yëpp est-ce que mën ngeen joxe ay tegtal ci nan la ñu war a euh, def ak sunuy sunuy téléphone ak yeneen yi ñuy jëfandikoo tey génne ay ondes. waaw euh, laajte bu am solo ngi noonu parce que comme euh, ñu ñëpp a téléphone. te moo ñu gën a jege sax yoo xam ne euh, fu nekk moom la ñu yere euh, donc exactement donc euh, téléphone yi aussi dañuy génne ay ondes parce que fu mu nekk lu téléphone day jéem a connecté wu ci station de base bu ko gën a jege pour nekk ci réseau bi nga xam ne su ñuy woo Babacar dinañ la système bi dina xam fan la Babacar féetoo ñu mën la jot léegi nag loolu ay puissance bu téléphone bi di joxe pour connecter wu euh, ci ci ci ci station de base comme lu ma waxee fu antenne bi gën a sori téléphone di gën a joxe doole pour mën a seet fa ana réseau bi léegi nag ci téléphone yi donc am na ay tegtal la comme euh, bañ ko euh, di ko def si sa poche su dënn parce que xala xam ne dañ nekk bon puissance boobu muy génnee ak corps humain bi tamit wóorul tellement bo pas wóoru sax mais bon j'utilise un mot assez <laughs> corsé mais euh, parce que mais dañu ne quand même ñu mën ko soreel euh, lu wàllu euh, dënn bi xool bi euh, aussi. kon def ko ci poche pantalon yi. poche pantalon yi ah bon moo gën a daal xel sooy seet léegi beneen bi tamit mooy yàgg ci téléphone. yàgg ci téléphone bi su dee da nga war a yàgg on te préconise nga nga utiliser casque. nga xam ne euh, téléphone du nekk en contact direct. parce que bu am fil wala. filaire filaire ou bluetooth. mais bluetooth. mais euh, parce que mais dañu ne quand même ñi mën ko soreel euh, lu wàllu dund bi xol bi. aussi. kon def ko ci poche pantalon yi te mu wóorul ah bon moo moo moo gën a def. sooy seet léegi beneen bi tamit mooy yàgg ci téléphone. yàgg téléphone bi su dee da nga war a yàgg on te préconise nga nga utiliser casque nga xam ne euh, téléphone bi du nekk en contact direct casque bu am fil wala filaire filaire ou bluetooth mais bluetooth bi comme lu mu ko waxee euh, dafa am ay normes aussi parce que yenn yi euh, mënul am benn puissance boo xam ne waru ko dépasser mooy comme téléphone yi tamit am na ay euh, puissance yoo xam ne téléphone bi ci boppam mënu ko dépasser te loolu comme nu ma waxee sànq euh, am nañu ndigal pour commencer saytu euh, téléphone yi di dugg ci biir réew mi. ak fala falaa bëgg falaa bëggoon ñëw. est-ce que contrôle bi war. ñu ngi koy def ndax euh, ñiy defar téléphone bari nañ bluetooth yi euh, ni ñu bëree ci biir réew mi boutique boo dem ay c'est des milliers de bluetooth yi fay jaay est-ce que respecte nañ contrôle ba ci war ñu ngi koy def pour xam ni normes yi respecte nañ ko yi ñuy jox. waaw xam nga ci même maa ma ñëwaat tuut ci code bi tamit dafa nekk équipement rajo électrique buy war a bu ñuy dugal ci dëkk bi wala bu ñuy jaay ci dëkk bi wala bu ñuy utiliser ci dëkk bi dañ ko war a agréé. ku koy agréé ARTP moo koy agréé loolu tamit ñu ngi ci euh, liggéey ak euh, service douane yi ndax euh, loo gis équipement buy ñëw soit su awul port aéroport lay jaar wala ci yeneen frontières ñi ngi liggéey ak ñoom fu mu nekk ni équipement bu mënti ñëw douane da koy arrêté laaj xool laaj ñu est-ce que équipement bi c'est agréé est-ce que noonu léegi nag ñun ci suñu liggéey tamit ñu ñu war a saytu équipement yooyu agréé ko xool norme yu muy utiliser euh, am nañu aussi euh, benn laboratoire boo xam ne euh, ñu ngi koy mettre en place ren bi dina commencer saytu lépp lu niroog téléphone ak lépp lu niroog équipement yoo xam ne à faible et faible puissance faible portée. Mhm. est-ce que ondes yooyu di génn ci téléphone yi mën na am lu mu def ci courant nga jëfandikoo courant ci kër gi. forcément da ngay jëfandiku courant boo war a chargé ak yooyu est-ce que mën na am ay problème ci ondes yi jóge téléphone bi lëkkaloo courant bi ba jur lu loo xam ni du neex. waaw xam nga même courant bi sax fréquence la c'est du cinquante euh, hertz. loolu tamit euh, dañ ko jël en compte courant boobu ngay chargé sa téléphone. si le téléphone comme lu mu ko waxee est normé xam téléphone dafa am na ay normes yoo xam ne su dee remplir na yooyu yëpp. am na ay test yoo xam ne usines yi ba ñu balaa ñu koy teg ci marché bi yooyu yëpp dinañ ko saytu mooy lu ñuy waxee sécurité électrique dinañu xool électro euh, électromagnétisme dinañu xool euh, en terme de spectre de fréquence yooyu yëpp usine bi balaa muy teg euh, équipement boobu yooyu yëpp dina ko saytu te loolu tamit moom mooy tax ay comme ni ñuy waxee accident Euh, sooy sooy parce que di nga gis am ay ñoo xam ne dañuy wane ci euh, YouTube bi wala yooyu ay téléphones yu explosé par exemple ñu chargé mais yooyu yëpp soit c'est des défauts de fabrication loolu mën na am wala aussi timide ay euh, téléphones yoo xam ne c'est des téléphones contrefaits yoo xam ne respecté wul norme yu ñu ko war a defaree. ci wàllu ba léegi chargé téléphone en même temps. Mhm. mais George wax noonu am solo de téléphone bu originalul wóorul. téléphone bu original. bu bu fekkee du original wóorul. original ça veut dire boo xam ne maison maire bay ko defar xam nga tamit téléphone lépp loolu laa lay wax sànq téléphone bépp bu ñu ci defar am na ay test yu ñu yu ñu def ci téléphone bi léegi nag test yooyu. su dee loolu mooy original waaye bu dee fekkee du original. bu dee contrefaçon la. contrefaçon waaw est-ce que wóor na. contrefaçon mënta mënta wóor. ci ci ci ci lépp ci laaj bi moo nekkoon euh, di chargé téléphone mhm. euh, nekk euh, di wuyu. déjà ñaar yëpp dañuy dégager ay comme ni ak téléphone bi ci wàllu boppam. voilà donc lool loolu tamit c'est pas recommandé so suñuy sooy xool ci texte yu ICNIR wax ak OMS yëpp wax. c'est pas recommandé di brancher sa téléphone en même temps di ko utiliser mhm. waaw léegi daanaka ay secondes rek moom des waaye yéen waa itam leen askanu di ŋàññee mooy ni ngeen di bàyyee waa Orange Free ak Expresso euh, ñuy def leen neex rawatina antenne yi am na ñu amul réseau am na ñu envoyé fii message léegi ne yóbbu woon nañ lettre ci yéen waaye euh, dara defagu leen ko mooy ñu dëkkee Euh, ay cité kaay baax ak ca ñàkkul rab ak ñoom seen amuñu réseau euh, te yéen yéen a ngi leen di seetaan ARTP itam loolu bokk na ci li sooxel euh, sox sox yi am ci liggéeyam. waa jàkkum réseau bi ak réclamation yi ñu ngi koy jot et ñi ngi koy traité donc am na beneen département boo xam ne ñoo ñooy def euh, qualité de service bi ñoo ñi ngi koy saytu ak euh, opérateurs yi euh, ñi ngi ci liggéey donc am na ay investissement yu opérateurs yi war a def at bu nekk dañu leen di pousse ci loolu léegi mooy juste ma terminer ne aussi que daje tey bi ak comme ni bi ak ministère de la santé lañ koy defal te aussi on a mis en place benn comité technique ak ñoom. pour hmm. euh, càmbar lépp loo xam ne euh, am na impact ci wàllu euh, ci antenne yi ci wàllu santé. Hmm. parce que comme ñoom tamit ñoo am nañu luñ ci war a wax. bisimilah jërëjëf Cheikh Moustachine Dia bu ARTP jërëjëf Georges ñu ngi ziar Fatick yéen ak jàmm. L'émergence est devenue merci beaucoup euh, jërëjëf euh, Babacar Fall euh, ñu sant ko bu baax gërëm ko ak équipe waa RFM matin ñu doon dalal seen invité léegi léegi mbokk yi ñu ngi ci ñaareelu pàcc RFM matin xibaar yi lañ koy dooree ànd ci ak Cheikh Tidiane Diaw.